waaw inspecteur de l'éducation moom dama ko nekk te du dañ dama am sama diplôme kenn mënu ko dindi ba pare am une certaine expertise li may gis ci système bi nag. mooy man wax fi raq. mooy. wax fi raq fi nga xam ne dafa am problème. gis nga fi baax. Mm-hmm. baax na ba pare. Mm-hmm. Mm-hmm. mais y a des problèmes dans le système éducatif sénégalais. lesquels. alors si depuis Diomsien on parle de Diomsien mais boo defee benn investigation historique da ngay xam ne bien avant Diomsien y avait cette volonté de dire ñëpp dugg. cin en Thaïlande dañ ni éducation pour tous état bi jëlee engagement ñoo am ay yoo xam dañ ko dañ ko ratifié par rapport à des droits ba fi may wax ak yow nii loolu dañ ko renouveler en 2000 ba fi may wax ak yow nii tey en 2022 2023 jëm 2023 dem 2024 y a des exclus du système am na ñu duggul ça pose problème te ñu biir ñu duggul ñooñu des bailleurs dañu ñëwoon di accompagner le système tel que l'USAID Mm-hmm. l'UNICEF mm-hmm. ak d'autres acteurs et l'État même dans le cadre du paquet te dama lay waxal ni État toujours dama koy wax moo am cette mission régalienne d'assurer l'éducation de ses enfants certes le concours des tiers mën na am kenn mën na jógee fële ñëw jàppale état bi mais moom moo ko war a régler mm-hmm. bu fekkee ne nag y a des exclus du système y problème ci biir problème yooyu des bailleurs ñëw di ñu jàppale ñuy wax les écoles les classes passerelles pourquoi des classes passerelles parce que da ngay gis benn village boo xam ne on recrute les enfants souvent su ñu amul enseignant bu ñu fa yóbbu dañuy geler ces créations là xale yooyu dañuy dem toog. mais loolu du yoon te loolu am na ci réew mi. alors bi ñu defee loolu am des ONG et des organismes des Nations Unies tels que l'UNICEF di accompagner avec ces exclus du système créer les classes passerelles et dans ces classes passerelles il y avait ce qu'on appelle les facilitateurs qui ne sont pas payés par l'État mais plutôt par ces ONG la alors l'USAID s'est retiré parce que damay jàppale ni gis nga un partenaire technique financier bu lay bu lay dimbale. Mhm. dafay mel ne yow tey nga bëgg a génne principal jëm Tamba. mais mun nga woo flèche bi wala motard bi mais bu la tegee autoroute na wàññeeku pourquoi am bëgg a yow ba Tamba. quand un partenaire financier t'accompagne à partir d'un certain moment ngeen capital affaire bi il faut porter ça à l'échelle il faut l'engagement de l'État te foofu dafa des ba pare ay rëq-rëq. donc man loolu moo ma naqari loolu moo am ci système bi man li nga xam ne am na jafe-jafe ci lay teg sama loxo mm-hmm. ndax système bi ñun ñoo ko moom. réew mi ñun ñoo ko moom suñuy doom ñoo fi nekk dañu war a góor góorgóorlu ba lépp jag ñëw nag di taf-tafal di wax affaire politique man nekkuma ci ak des discours soi-disant institutionnels lan mooy discours institutionnel mooy nga bañ wax dëgg gi di habiller la vérité te souvent dama koy wax wax dëgg rek lan moo ci jàll sa robe wax dëgg rek lan moo ci jàll sa robe mais mieux maay ma yeggale donc tey ñëw ñooñu non seulement l'USAID s'est retiré mais l'UNICEF s'est retiré ñooñu ñu nekk ay borom kër état bi def crème bi mënagul génne amul suffisamment d' enseignants y' a des exclus système am fi gën a métti nag fii métti carrément. Mm. mooy si tout tànk yi te xam nga état bi moom dañ ko war a plainte ndax dafa am une première loi de 71 après la crise de 68 c' est la loi d' orientation am une deuxième loi d' en après l' année blanche de 88 mais mieux Ablaye Wade quand il est en 2004 mu créé la loi sur obligation scolaire. maanaam xale bi bu juddoo war na dugg école séy yi nag lay commencé ba troisième dafa war a toog su amee ñu duggul ñooñu nañu dem porter plainte état bi en Belgique sa doom bu juddoo trois ans te yóbbuwuloo ko yow parent bi yóbbuloo ko ci école état bi mooy ñëw plante la état bi tam bu jëlee engagement bu ko respecté wul population bi ñoo war a dem plainte état bi parce que xale yi dañ leen war a jàngal fi gën a metti mooy surtout tànk est-ce que xale yëpp ay dem maternelle est-ce que xale yëppay dem jardin d'enfants xam nga lan mooy TBS bi 17 pour cent la moo tax ñun ñu bind beneen livre bi sur la qualité des enseignements apprentissage parce que man ñaari tànk laay doxee je historien de formation inspecteur l'éducation ci histoire lay wax ak science l'éducation mm-hmm. alors suñ taux de xam nga lan la mm. boo dee élémentaire da nga naan TBS boo dee préscolaire nga ne TBPS taux brut de préscolarisation c' est 17 pour cent te taux boobu day cacher des disparité foo demee fu mel ni Malem Odar amuñu 1 pour cent xale yépp ngi taxawaalu te dafa am lu garaaw lu fa nekk ñiy def recherche yépp en neurosciences wane nañu gis nga doomu africain moo daq jàng mooy gën a muus doomu tubaab bu ñu juddoo ndax doomu africain bu juddoo rek mhm. ñépp a koy fab mhm. bu ñuy yi dañ koy yóbbu bu ñuy rooti dañ koy yóbbu lu ñuy def dañ koy yóbbu mais doomu tubaab bu juddoo fu koy def ci berceau ba boo jëlee Baldwin dans sa réaction circulaire primaire l'enfant du tubaab mu ngi ci berceau ba rek lu ñu ko fay takkal ay jouet taluñu ko ñoom dem nañ wala ñu yóbbu ko crèche alors l'enfant africain fi muy amee nag deux ans wala trois ans bien vrai que rawoon na doomu tubaab bi mais day sombre parce que wutal nañ ko rakk ba pare sànni ko relégué fële. li tax ñu relégué ko mooy y' a aucune structure de prise en charge de la petite enfance. wutal nañ ko ko rakk nag. ba pare sax day sombre nag doomu tubaab bi nag y a des de prise en charge c'est ce que Wade compris mm-hmm. moo tax mu indi woon la case des tout petits mm-hmm. et quand il a amené la case des tout petits lui c'était à un niveau stratégique c'est mm-hmm. nous qui l'avions opérationnalisé avec Souleymane Yoro et Margaret Ndiaye donc c'est des collègues alors tey bu ñu nekkee ci 17 pour cent ay document de planification ñu ne waroon nañu am 50 pour cent de TBPS en 2025 te 2025 ñëw na ou 2030 ou 35 y a taxaw nag bàyyi caaxaan yi bàyyi wax lu lu dëgg. nañu waxante dëgg. te réew mi ñoo ko moom. il y il y a